waaleykum asalaam Hadj Babacar maa ngi lay nuyu di ziar ñëpp ñuy déglu RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen ñëpp mbokk yi xibaar yi ak bëccëgu tey gi ñu jagleel ci àddina xeex beeg mititel gi euh, jëmee ci soxna yi waral comité bi taxaw di xeex wàllu violence yooyee ci jigéen ñi yëglu Sénégal xayma nanu fi euh, daanaka ñeent fukk ci ay camp ay ay ngeen baal ma jëm ci wàllu mititel gi diggante weeru mars ak octobre 2020 euh, gi gi nu ne wàllu xibaar bokk na ci ñàkkum ndox ci àll bi lu ci mel ni Tivine Tongor wala Tivine Lamine Diassa ca commune bu Mont Roland askan wi eh, def fa toggaanu ñaxtu démb yi sàkku ndimbal ci kilifa yi naka noon it ca Ngoye ca diwaanu Ndiarème foofu it eh, danoo daal di eh, coupé forage ba jamono yi moo waral seen ak yëglu ñoom ñu dëkkee foofe foofee. nun moom kër yu bari yi nu fa dal daaneel ci réeroo ci wàllum suuf waral askan wa boroom kër yee yëglu kanu ci joxe nag ab promoteur immobilier privé la ñu ne moo daal di def lu ni fas nañ ci yéene jokko ak yoon ci technique bi Abdoulaye Diop.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 nga xamante ni ña nga ca liggéey bi jamono yi jëm ci def népp crime lu jëm ci siif ak euh, sàkku gune yi Fama jon seetlu gi benn la xoxotal gi ñuy teg soxna yi li ñu koy faj bariwul fukki fan ak juróom benn activisme yi ñu nar a amal dina doon ab porox ndoll ci soxna yi ñu gën a yokk ku xeex bi Penda Seck moo yëkkati kàddu ci turu fanweer ak juróom organisation société civile bi. Covid bi fi ni dafa laal bu baax. violence basée sur le genre. naka la ko non noonu au plan sanitaire mais non la ko qui ci violence basée sur le genre ba nga xamante ni si bëri na ay forme de violence yu nga xamante ni si dañu sax génnaat gënte mars ak euh, octobre am nañu ñeent fukki cas ak juróom yu nga xamante si violence basée sur le genre la ci période boobu comité de lutte contre les violences faites aux femmes recensé ko. stop dafa doy na dak kaddu yu bari lañu jël ngir ñaawlu xoxotal gi nga xamanteni ñu ngi koy tek soxna yi nday Saly Diop Dieng mooy jëwriñ yor walum njabot gi soxna yi genre ak protection des enfants. dafa doy dafa doy parce que nag yaakaar jafe-jafe yi bari ci si jigéen ñi particulièrement les violences basées sur le genre waye yaakaar naa ne lu metti metti bu si ñëpp jógee ànd tous les acteurs commencé ko suñu jigéen yi les états la société civile tous les acteurs jógee mobiliser wu pour lii mën a jóge fi bu baax yaakaar ne ci am ay résultats yu am solo te nag lu am solo la parce jigéen ñi nag ñoo ne ci biir kër yi ñoo yor famille yi ñooy taxaw ñoo dimbal seen njaboot. lu jege juróom-ñaari téeméeri million la ñu débloqué ngir mën a amal fukk ak juróom-benn jour activisme yi ngir daal ñoŋal loi bi nga xamante ni mooy xeex viol ak pédophilie loi boobee nag traduire nañ ko ci fukki langue ak ñeent yi nga xamante ni moom lañ ko codifié fii ci Sénégal. jërëjëf soxna Fama Dione ñu waxtaanee ak waa Ngoye ñu nga ca diwaanu Diourbel ay fanangile amunum ndox loolu nag euh, moo waral seen ak yëglu joxoon nañu ci kilifa yi ñu gis ñoom waa Ngoye ne dañoo daldi di euh, bëgg euh, làq ab privé ci loo xamante ni du seen intérêt ñoom askan wa fa ci wàllu nam ndox ci seen kàddu ñoom waa Ngoye ca Diourbel Aliou Sène ak Babacar Diouf. état bi dafa taxaw ci xañ ñu ndox. état bi dafa ñëw couper sunu forage. ngir lan. ngir dafa indi de benn mooy privatiser forage yi maanaam jox ko ay société privé te askan yi yoroon ko euh, ñun ñu ne déedéet nanguwuñu ci biir loolu état bi mel ni ku ñu mere di ñu bund xataal di ñu xañ jàmm ba tey jii nii mu àgg ci couper forage bi léegi tey mu mat weer euh, li tax ñu gën ko doon sax nag fi mu ne nii mooy dañu toll ci ouverture école boo demee ci école yi na dajale fekk gone yu bari ak ay mag yoo xam ne dëkkuñu fa ñu nekk mañeen dëkkuñ ci fa ñu ci seen bërëbu liggéeykaay ñoo ñu war a yitewoo ndox te duñ gis ndox kon ñu bëgg askan yëpp xam ne ndox mi manqué tey ji Ngoye du kenn ku dul état bi parce que moo jël ndox mi jox ko benn société bu privé te askan bi nanguwul mu ne comme askan bi nanguwul dinaa leen bundu xataal dinaa leen teg coono eh, moo tax mu coupé suñu ndox depuis lu mat weer loolu lañ bëgg tey ji askan bi askan bi xam ko waa Sénégal xam ko waa bitim réew xam ko ne est que nguuru Sénégal mu ngi noot ay doomam mi ngi noot euh, askan bi di ko xañ ndox loo xam ne lu vital la Euh, lu doomu aadama soxla lu doo mënta ñàkk doomu aadama la mu koy xañ doomu aadama yi ndax ay intérêt yoo xam ne ay intérêt privé lañ ay intérêt yoo xam ne ay nitu privé lañ. Alioune seen ci turu askanu Ngoye ci bel ci ñàkkum ndox ma fa ñoom ci département Tivaouane euh, commune Morolan naka noonu dëkk yi di Tivine Tangor ak Tivine Diassa ñoom it ab ay bësangile amunu ndox ndax coupé gunu coupé forage ba fa ñoom Cheikh jëpp Morolan ñu toll ci ay bés a ngi nii toqam ndox gisuñu ko ci dëkk yi di Tivin Diassa jàpp Tivin Tàngoor nee nañ forage bi nga xamante ne waa Aquatec ci ay loxoom la ñu ko teg dañu ko coupé Jean-Philippe Déthié Gaye ma moo yor kàddu askanu Morolan li nga xamante mooy suñu forage Aquatec di koy gérer courant bi dañ ko coupé waa Senelec ñoo coupé courant bi ndax dañ leen war a fay facture bi waaw xëy na ñoom tamit dañuy naan am na ñu fayul mais am na ñu fay ñi fay nag nañ leen delloo seen ndox ko waaye tey bu dee ñëpp dañuy nekk moom mooy coono gi saret yi la ngay gis ñoom ñi ngi noon di dem ndox la ñuy wëri soxna yi ak ñi nga xamante ne ay tool la ñu yor fii ci Morolan nee nañ ñàkkam ndox mii de metti na ci ñoom lool da ngay xëy xale yi dem nañu dañuy gont maa ngi taxaw fii de waaye dama war a wuti ndox de ndax sama waa kër dañuy gont dañu war a sangu sanguñu démb ñu sangu tey sonn nañu nekk da nga am njëgu saret mille trois cent chaque jour mënoo cee dëkk sax ah wax dëgg ma ne mën naa am mille trois cent chaque jour damay aw ma saret eh loolu ñun xamuñu ko waa jaasa xamuñu jënd ndox su mu nekk nii benn siwo ndox ngay am toute la journée boo ci toggee añ jeex na. xale yi jàngeetul mais yow boo toggee une semaine sa ngoo nooy demee école maa ngi nii sama tool maa ngi yaakaar pour liggéey pour jox sama njaboot walaay la nga bi may xëy fii sama patron moom lebal dépasse ndax tool ba yàqu na ca moom laa yaakaar. Tivin Tango Tivin Diassa askan wi ñoom nee nañ daal nañu def seen këmt lay kàttan ba ndox mi dikkaan te it nee nañ bëggatuñoo dégg. aquatec fi ci Morolan ndaxte wa morola dañuy jankonté la ñàkkam ndox RFM Thiès Cheikh Ante Diop. jërëjëf sëñ Cheikh ñu déllu ginnaw ba Tëngéej euh, département ba lé ci Kunun ab promoteur privé mo fa wax la mu diggoon askono manam jël ay euh, euh, soufam lu ci bari ci kër toj nañ ko fofé njabot yu bari tumuranke ñom ñu gis njabot yoy né yëf yi dëppoowul ak yoon dan ci jokkoo sax ak yoon fileeg bobu nak sakku nañ ci kilifa yi ñu wax ci it Abdou Diouf Diagne dara desatut ci espace bu yaatu bi nga xam ne mu ngi ci diggante kunun ak ñàgg promoteur immobilier bi di Madiagne la mu waxoon daal dina koy def ñëw naka xool si moom mi bokk ci ñi ñuy toj seeni kër mer ba futtu la def. kër yi bari na presque ay sept kër ñu ngi fi moo xam ne dañ leen toj nee nag descotch moo ne leen nañ toj kër ñun nag gisuñu benn kiit bu war ne jóge tribunal wala yooyu ñu ne toj leen kër yi man gisuñu kon nag ñun na loo nga xamante ne ñu ngi si teg suñu tànk ñu ngi koy lijjanti bu ñu demee ba wóor na la ne nañ ko ba xam ne Madiagne Diagne mii fii la fii la war a yem bés bu fu yemulee nag état lu mu dégg na xam ne ñun la ngir fexe ba ay jàppante du am ci gox bi moo tax a ñu toog famille dem yokk ni lii ci la bokk ci 43 hectares fii 43 bu fi génnee lépp ci la bokk ñu wax ba sonn mu bañ suba machine dina fi tàkk lu mu ci bëgg rek ñu fekk ci nañ ko ci yàgg suuf xam ne des buy toj mu leen ne demal nga toj dina la yebal wala au moins 4 L200 wala 3 L200 ñu armé ñëw taxaw ñi nga xam ne nekk dañoo toj seen i kër di wéy di xam le ne fukki hectare ak juróom-benn yi nga xam ne moo waral coow li ñoom ñoo ko moom te it dinañu dem fa mbaxana doone benn RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou jërëjëf ñu des ak askan wi ku nekkinam ñu ci mel ni ñu dëkkee ca Sanda mu ngi ca commune bu mbaan ñoom la ñu bëgg mooy juróom-ñaar fukk ci hectares yi suuf yu nu fa baaxee soxna suñu naan Aminata Niang di femme d'affaires ñu daal di ca wax jëmewaat ko ci ñoom ndax gis nañ ne daal yëf ya dëppawul ak yoon sàkku nañu ñu kon dakkal na mu gën a gaawee liggéey yenu fay amal sous-préfet ba it bu Mbane gis nañu ñoom askan wa ne dafa far waa Sanda ni gisee Mamadou Diagne protocole d'accord bi ñu xaatim si diggante Aminata Niang ay yenn autorité locale yi nekk ci biir commune bu Mbane tey moo indi jiixi jaaxa ci diggante askan wi yeewoo si dëkk bii di Sanda ak ndaw sile gannaaw ay ay bés yoo xam ne ñu ngi ko doon waxtaan askan wi yeewoo ci dëkk bii di Sanda li ñu bëgg mooy ndaw si daal di bàyyi liggéey yi nga xam ne mi ngi koy amal ci seen dëkk bi bile ndaxte bu ñu sukkandikoo si kii di Aliou saw mi nga xam ne ni ndaw si di Aminata Niang ni mu amee juróom-ñaar fukki hectares yi lay jaarul si yoon na. ñun seen wu ñu wuñu ak loolu. wax nañu suñu chef de village naa delluwaat si sous-préfet lu mu li wax ñun anduñu si tey anduñu si ëllëg sous yëg naa mais sous defu si benn affaire xaw lu mu ci am xaw ma def si am amaloon xaw ma mais waxu ci wax ba nga xam ni pour ñuy dégg wax bi def na réunion dimanche ñu ñëw foofu mu waxtaan ak ñoom mu yónnee leen si population ñooñu chef de village yi ñëw waxtaan si population population d'accord wuñu léegi nag dañu xamul sous lu si dëkk bii di Sanda ñi ngi sàkku si kii di Aminata nga xam ne mi ngi koy amal si seen dëkk bi ñoom ñi le sax bañu ñu si yëngu-yëngal amuñu fu ñu dëkk ku amul ku dëkk kay xanaa du am fu mu sàmm te ñun ay famille la ñu am ak ay jur la ñu am lu des li foofu bu nit ñëwee bu gàkke jël suñu bakkan la bëgg a jël bu su bu fekkee looloo la àndal maa ñëw toxal ñu foofu léegi daal ñun ñoo ngi tey suñu suuf ñoo ngi foofu xaar sous moo wax dana indi foofu ay police wala ay gendarmerie dana manoncé nit yi ku ñëw foofu daañu ko def nangam daañu def nangam ñi lee ñi ngi sàkku si nguur gi mu daal di def lépp lu mu mën ba saafara jafe-jafe bi lee Mamadou Diagne fii si Sanda ngir rajo Futur Media. jërëjëf Mamadou Diagne askan wa wala boog soxna si ci boppam soxna Aminata Niang lay leeralam mooy juróomi hectare moom ci boppam ngir exploité gi jubóo nañu ci ak askan wi mu des kon juróom-ñaar fukk yooyu nga xamante ni ba tey ji fa la gindiku amagul. ci walu xibaar bokk na ca euh, li juróom-ñetti téeméeri élève professeur nekkee ci walu ay jafe-jafe ñetti weer yi indemnité de stage la ñu bëgg yooyu élève professeur ndax formation bi dana ko tàllalaat juróom-ñeent fukki fan yeneen ginnaaw mbas mi di Covid 19 élève professeur yooyu doon ci janoo sax talaatu démb ji ak taskatu xibaar yi ci ngoon ca dalu FASTEF faculté sciences ak technologie d' éducation la formation directeur général bu COUD moom centre œuvre universitaire Ndakaaru mu ngi daal di baaxee ñaari bus ay wata étudiant yi nga xamante ni ñooy université sin Saalum El Ibrahima Niass bu Kaolack mu fekkoon ñu nekk ci jàmbat yooyu étudiant ci wàllu soriwaay moom directeur ku ñu teewlu ko euh, Maguette sen ak Ibrahima Diamé. dañoo ñëw tey euh, visiter université sin Saalum mu nekk sunu première génn Dakar pour wane rek solo bi nga xam ne président da koo jox ci équité territoriale. mooy toutes les localités sabal Dakar ak région yi benn lañu. donc tey ñu réserver suñu première visite à l'université du sin Saalum El Ibrahima Niass ñu ñëw nag ñëwuñu ak ay loxo loxoy nen ndax dañoo ñëw président jox ñu yóbbal jox ñu ñaari bus ak ambulance nañu bu ngeen demee yóbbul leen ko université Kaolack parce que xam na ne euh, campus social bi nekk fii ci ay sites yu bari la nekk te dañoo soree seen diggante ku ne xam ne ne étudiants yi sonn nañu mu nañu bu ngeen demee yóbbul leen bus yi yóbbu leen ambulance yi ambulance bi donc muy voyage boo xam ne bii nag yemul Kaolack ndax Fatick la njëkkee Fatick ñu def benn convention ak transporteurs yi nekk foofu pour ñu yóbbu ñu looyee foofu ci ay transporteurs pour que koy suñu indi la waye tamit ci bir convention bi permettre nañ bépp étudiant bo xam bi am nga carte fo bëgg déplacer wu ci bir Kaolack réseau bus yooyu nga mën ko utiliser té do fay dara donc je crois que euh, Kaffrine moo des suba inshallah lañ fa bëgg dem xol tamit fofu lan lañ fa mëna yob ak lan lañ fa mëna def donc muy voyage bo xamné bi dañ ko def principalement pour indi yima tuddu muy moyen de transport waye tamit occasion la pour ñu xam yeneen difficulté yi nga xamné étudiant ñong yi ñoo ngi koy jànkonteel te ñu teg ci suñu bëtt mané lo xamné xam nga ci teg sa bëtt bokul ak lu ñu bindal ci rapport tàggat yaram ñu ànd ak Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane ñu dal di ko door rek wàllu bool ak éliminatoire afro basket bu ñu jagleel la góor ñi ca Kigali di capitale bu Rwanda yëf yi ni ki tey jii lay daal di door. suñu gaynde yi sax jamono gi ña ngay amal seen séance d'entraînement bu mujj laata ñuy soobu ci gi la tey ji ci ngoon seen digg ak ñii di waa Kenya ni ki démb gannaaw ba ñu defee li nga xam te sax moo di seen séance d'entraînement kii di Boniface Nango di tàggat équipe bi am na ay kàddu yu mu yëkkati ñu déglu ko ci micro Mor Bassi Niang bu record malheureusement suma ma am 10 jours par exemple à na def 5 ñu gëna a mais bon nous na jours yo xamné résultat Covid test donc muy Maurice Ndour euh, Youssou Ndoye Mbaye ak euh, euh, voilà donc il nañ ni na nous tay parce que nous sommes avant 15 h mais bon malheureusement génnul donc nous nañu entraîner avec ñi donc surtout ligue euh, système et puis ligue aussi base défensive équipe de mos donc da ngay <laughs> tournoi donc euh, c'est vrai que 5 contre 5 defuñu parce que d'abord nous ko mais aussi voyage bi dafa donc il faut ma bàyyi jouer yu parce que ñetti match la jouer d'affilée donc euh, plus entraînement tactique que que entraînement physique su ma sañoon ma am 4 jours avant tournoi bi dama a 4 jours kese laay am 4 jours tourner deux ñaari fan à la fin 20 fan en plus sans équipe complète. complet donc c'est vrai que nous avons des avantage comme certaines équipes mais aussi ñun avantage bi ñu am mooy que joueurs professionnels donc peut-être nous gën temps jouer au niveau Moi, je que suba nous ñu jouer du parfait mais il faut que nous remplacions avec ak énergie donc il faut que nous xalaat ak suñu bëgg ëpp doole que technique parce que dina juum xam nga mënoo entraîner ñaari fan ba pare ñëw dox ko lépp donc mais bon am naa confiance sama sama groupe bi ay professionnels lañu xam na li leen fi indi donc suñu euh, jouer 100 pour cent je pense que am nañ suñu chance pour gagner match bi Sénégal Kenya tey jii ci bu 15h jotee lay Dal di doon ca Kigali euh, di capitale bu euh, Rwanda wàllu football ak tournoi à zone A bi mu le moins de 20 ans yi équipe nationale junior yi ni ki dem nag Gambie moom daal dina qualifié ci wàllu demi-finale la ko waral moo di ndam bu mu am ci diggam ak ñi di waa Sierra Leone ca Thiès stade euh, Lat bu Thiès ñaari ball ci benn Gambie moom moo njëkk dugal ñaari but laata sax ñi nga xam te ne ñoo di waa Sierra Leone réduire li nga xam score bi jàppale nag ci lu jëm ci wàllu euh, tableau demi-finale yi ña ca qualifié moo di Sénégal mi ko organisé Gambie République bu Guinée ak Guinée-Bissau République bu Guinée ak Guinée-Bissau sax ñoom ni ki tey jii dañ daal di jongante ci bu 16h jotee ci Stade Lat Dior bu Thiès ñoom nag euh, solos gi jongante moo di fexe ba jël place bu njëkk bi ngir mën a éviter Sénégal mi nga xam ni moom moo organisé mbir yi jàppale nag demi-finale yi danañ ko amal incha allah euh, ni ki ñu daal di waxtaane bi euh, Ligue des champions quatrième journée tombeek premier match retour yi ni Paris Saint-Germain moom métti woon na lool ci moom waaye ci mujjantal mujj club allemand Ben bal ci dara seen but minutes, à penalty la onzième minute Koko dugal Modi Neymar Renidal daal di déglu sax euh, kii di Tassirou Diallo yëkkati na ay kàddu gannaaw gi la jongante ñu ko ci micro Youssouf waaw soo xoolee bon équipe bu pare bi tey gis nañu beneen xar kanam bu mu indi xar kanam bi mu indi mooy këne dañuy ñëw si match bi ñëwee si këne waruñu ko ñàkk parce que bon toujours su fekkee ne joueurs yi ñëw nañu bokkandoo àndandoo xeexandoo li ñu bugg dañ koy am te tey moom la ñu def lépp dañ ko boole mu nekk benn ñu wuti ko wuti but bi am ko téye but bi bañ jël but dem ba match bi jeex. équipe bi tey wane na boppam si leneen parce que wane na boppam këne bon euh, li nekkoon si ginnaawam. li nek ci kanam bi lay xol moy que ne tay final la doon joué te final soo koy joué koy gagné motax ñu gagné match ci googule groupe Manchester United moom qualifié na ci prochain tour gannaaw ndam ba mu am ci digënté mak doomi Turquie di Istanbul Başakşehir bu Demba Ba ñent bal ci benn lëkk Manchester United daldi di daan doomu Portugal gi di euh, Bruno Fernandes jotna duggal ñaari but ben ba ki di Rashford ak James ñoom ñoko daldi duggal euh, japp dugal euh, Demba Ba googule match jotna ko joué ba mu jeex ci groupe A bi. ñu Manchester United nag moom moo féetee ci place bu njëkk ba ñaareel place bi PSG moo fa daal di tollu euh, daal di am juróom-benni poñ topp ak euh, poñ ak ñi nga xam te ne daal ñoo di waa Leipzig Chelsea moom itam daal di na qualifié ci huitième de finale moom mi nga xam te ne ma nga woon ca France diggam ak Rennes daal di ko daan ñaari bal benn googu jongante am na ñetti doomu Sénégal yi nga xam te ne yëngu na ci yëngu nañ ci kon bokk ku ci mel ni Edouard Mendy di gardien euh, bu Chelsea doonoon ni jamono gardien bu moo di Alfred Gomis moom itam na góolu gile jongante Mbaye dal na dugg ci seconde période bi dal di remplacer Guirassy mi nga xamanteni sax mom jotoon na égaliser pour équipe bi di ren Lat Olivier Giroud di ñëw di duggal but victoire bi pour ñi nga xamanteni dal ñoo di wa Chelsea FC Barcelone mom tam dal na qualifier euh, ci 8 huitième de finale gannaaw bu mu fekkee doomu Ukraine yi di wa Dynamo Kiev daal leen daan ñenti ball ci dara ko lu jogante ki di Messi sax euh, football ko Juventus Turin mom tam qualifier na ñom dañoo dal di am ndam seen digg ak ñi di wa Ferencvaros ñaari ball ci ben Cristiano Ronaldo ak Morata ñom ñoo duggal butu euh, ñi nga xamanteni di Juventus de euh, Turin ci groupe F bi Borussia Dortmund mom dafa d'Aldi euh, Dan club Bruges ñetti bal ci dara ki di Haaland euh, jotna dugal ñaari bit banen ba du dugal Sancho Krépin Diatta football ci gile jongante non itam ak Youssouf Badji mi nga xam dañ ci seconde période bi Lazio bu Rome digam ak Saint-Pétersbourg di club Russie Tom Italie ñoo si daal am ndam ñetti ci Krasnodar mom dafa ñak ci digam ak ñi FC Séville ñaari bal ci ben la ci dess ci jongante Niel. quatrième jour

Maglen di nuyu mbokk yi tey jii fukki ci novembre moy bis biñu euh, jéglél ngir euh, metital yi ñi Munfi jigéen yi mën fi euh, joggé ay artistes yu ko maison des cultures urbaines bu Wakam dañu amal théâtre musique waye itam exposition Kidi di Dédé Didi Nek blogueuse taxawal association bi mu di pe violence faite aux femmes mom mo daal di taxawal boobule xew-xew ñu déglu dama du bu fekkee ne da nga bëgg dara rek da ngay dem nga grève mbaa nga xeex mbaa nga yuuxum mën nga wax say soxla de différentes manières donc euh, sur le plan artistique mën nga communiquer boo seetloo Nelson Mandela lu muy xeex euh, racisme bi en Afrique du Sud li gën a tax mbir mi siiw li gën a tax ñu génnee ko art bi la way bi daan def peinture bi écriture bi donc c'est un moyen de, de dominer ou bien de faire passer un message Ni hein. pas passer une idéologie yëpp ci bind art ak peinture lañ ko fait donc euh, je me dis que nous devons faire la même chose à travers la peinture à travers l'art à travers l'écriture Mon événement bi ça parle des violences faites aux femmes euh, ay nous ñoy ñëw def peinture def teinture way euh, def théâtre pour exprimer la violence faite aux femmes journée bi kon dina tambalé bu 17h30 euh, jotee faufette maison des cultures urbaines bu Wakam euh, ñu wëtali euh, Maroc ak juróom édition festival for music bu Rabat édition 2020 bi nga 100 digital la won dal dina festival bi nak premier marché professionnel à festival des musiques bu Maroc bu Afrique waye itam bu Moyen-Orient Kidi Ibrahim El Masned ki taxawal boobu le festival mom itam ñu déglu Sonko micro suñu correspondant ca Maroc euh, Khadim Bay ren ji euh, festival bi day am ci jamono ju jafe-jafe yam ak mbas mi dañ koy yemal rek ci digital bi waaye nag dinañ am ay invité de marque nit ñoo xamni seen xam-xam dafa màcc lool ci li nga xamni modi musique ku ci mel ni Amadou Fall ba bu Sénégal moom nag ambassadeur bu mag la boo xam ni dafa ràññeeku loolu ci musique urbaine waaye nag am na ñeneen ñoo xam ni dañuy bàyyeeku ci yeneen réew moo xam Burkina Faso la moo xam Mali moo xam Côte d'Ivoire moo xam Libéria Afrique du Sud ñoo xam ni ñooñee dina mën a waxtaane li nga xam ni mo jëm ci problématique yi nga xam ni moom lañu dund moo xam ci digital bi la moo xam ci soxna yi seen participation ci secteur bi moo xam tamit li nga xam ni moo di entrepreneuriat ci secteur bi de manière générale. Diko ko jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Universel Pousse ak seen savon de Marseille créole. ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay Mamadou mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ministre yi doon janoo ak taskatu xabaar yi démb ci yor yor gi journal yu bari ñu xëyandoo li ñu ci gis moo di wax nañu bëne gër géex waaye waxuñu fa dara la Sénégal jàpp ne ay ministre la woon yu daje woon doon xumbal ak fuural journal Le Témoin ne juróom-ñeenti ministre la woon waaye li ñu wax démb yépp amu ci dara lu yees rawatina ministre intérieur Antoine Félix Diome ndax bi journaliste yi bëggeem tàkk bu wér ci bëgg journaliste yi le grand show la ko journal bi di Sud Quotidien tuddee ba noppi nag dikk ak ñun ci li ministre commerce Aminata Assome Diatta wax ci suukar si ba ci ni mu dalee ci kaw compagnie gi ŋàññi ak jébaane suukar si li ñu ne réewum Espagne fas na yéene dellu si doomi Sénégal yi jëloon gaal gi ba dem Espagne Sud Quotidien nee nañu wax jooje Moïse Sarr weddi na ko démb ca ndajama ñàkkum ndox gi am ci dëkk bi jëwrin gi ñu dénk ndoxum réew mi di Serigne Mbaye Thiam journal bi nee nañu ba mu cay wax Abdoulaye Wade ak nguuram la ko jiiñ la Sénégal nañu yamu ca ne nangu na tëléegu état bu Sénégal tëlee ngir lijjanti jafe yi ci ndox mi ministre intérieur di Antoine Diome journal bi nee nañu moom it bi ñu koy laaj li jëm ci élection locale yi ndax dina mën am ci weeru mars am déet Antoine Félix Diome da doon wër wagaat ci wax ji mbas mi mbëkk mi xëyum ndaw ñi napp gi ak suukar si li ci ministre yu Macky Sall yi tontu journal Le Quotidien wàgg d'explication la ci gis enquête dina nañu état bi ay góomam la doon fàcc mbëkk mi ak jëye ji mu jur ci réew mi enquête nee nañu ko wutali bitim réew téeméer boo ci jël juróom-ñett fukk ak juróom-ñett yi ci secteur informel bi la nekke soleil national xamal ñu ne gouvernement bi leeral na bu nuppi dalal xel yi ci lu jëm ci immigration clandestine gi di mbëkk mi ci lu jëm ci emploi des jeunes di xëyum ndaw mi ñàkkum ndox mi am ci réew mi feebar bi feeñ ci mool yi ba ci campagne bi jëm ci njënd ak njaayam gerte gi li amoon démb ci diggante gouvernement bi ak journaliste bi di soleil démb li ñu def daal moo di dajaloo dajek journaliste di ragal Macky Sall ab deram Walf Quotidien ne ko boole ko kit wane seenug yaafuus ak seenug cuune rawatina porte parole ba di ministre Omar Gueye moom moom wane ne na lim doon def yëpp dara la ci xamul ne bu weesoo foti français yu rëy yam doon def ca ndajam da caa boole woon di jël guy gii tey ci daqaar gi di jaxasay fa la xëy raja xëy dem journaliste que mi ñu xëy wax ne gouvernement bi da doon xaalamal boppam démb wax nañu it li ministre de di fa jële ji te Assome Diatta nee na loolu li ko waral moo di compagnie sucrière sénégalaise gi war a jox waa réew mi suukar moo munta matal li askan wi soxla ci suukar suur suwaa nañu njàngat lu wér li ñu mën def ci conférence de presse bi juróom-ñeenti ministre yi xëy woon moo di leen rek a ca baaxoon moo di seenub sañse démb daal ñoom ñëpp a sañse woon lu rëy toilette ba jekk waaye bu weesoo loolee amul dara lu am njariñ lu ñu fa wax bu doonub concours de sañse ñu ne benn mannequin du ñemee taxaw ci seen kanam waaye journaliste yi woon ci seen kanam ñoom dégguñu fa dara lu am njariñ xëy na xanaa bu weesoo ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ak ministre agriculture Moussa Baldé ñoom daal ñoo fa xaw wax ak su néew lu ñu dégg ku ñu dégg lool di musafasi Cissé Lo journal L'Observateur xeyna di jema xam lu waral gi lan moo tax bi mu jugee ci gita ngaas gi won digam ak Yaxa Mbaye ak Farba Ngom bobé ba légui mu tok def pàtt gi jàpp njàmburam journal bi nenañu bu weesoo sonu gu mu sonu ba tax mu jël dem delu ci njabotam togi fa liko ko tax ne tekk ne patt moom Moustapha Cissé Lo ab sëriñam ci la waye Macky Sall ak soxna Mariam Salit ci ndawi réew mi génné gu ñu seenum xel ci mbëkk mi ba légui firndeli mi ngi ci xëp mu ñëkku libération journal bi xibaar nañu ne dembu rek amna lo ci gu takkon juk mbëkk wutali bitim réew waaye kii leen bëggoon a yóbbu ak ñenn ci ñi waroon a dem ñoom ñëpp la ñu teg loxo ca kaarang fa la ñu leen jàppee. Universel Pousse ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mouhamed jërë ngeen jëf mbokk yi xibaar yeeg bokkoon na ci bëccëgu tey gi jagleel xeex ak lu jëm ci mitital bépp euh, xeetu mitital jëm ci jigéen ñi comité bi taxaw ngir xeex lu ni mel ci réew mi le euh, di yëglu lanu bëgg mooy euh, ñu def ne crime wàllu viol ak pédophilie xam ngeen ni loole nepp projet de loi adopté nañu ko assemblée ba ñu ngi ci yoon wi ci wàllu adopté nañ ko conseil des ministres ngeen baal ma assemblée ci des ci wàllu jëmmal gi ñàkkum ndox ci kaw gi lu jëm ci wàllu woowee dégg ngeen ci waa Tivin Tango ndox ak tribune Diassa ca commune bu Mont-Roland euh, di yëglu ndax ñakum ndox fa ñom naka noonu it waa ci département bu djourbel ñom ñep dal bu nu sañoon kilifa yi taxaw ci sen forage yoy ak yoonu ndox mi ci kaw gi ku nun mom ay kër yu nu fa daaneel seen borom mer ba futti sakku ci kilifa yi ñu wax ci danañ jokk ak euh, yoon ndax danoo gis ne du lu tegu ci yoon toj gi joxo euh, joxoñuñ ci kenn ku moy ab promoteur immobilier privé Abdoulaye Diop mo nekkon ci technique bi El Hadj ci micro bi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm ca karam tuuti pencoo gi ak RFM li ñuy waxtaanee wàllum di sécurité ak lakku yi ñuy faral di dund ci sunu marché bërëb yenn ci Sénégal ga ci mujj ba dalal Amadou Kanar Diop ancien officier supérieur sapeur pompier expert la ci wàllu sécurité publique directeur général cabinet prévention incendie panique ak explosion Moussa Sy na ko noonu ci maire yeeg marché yi Moussa Sy mooy maire bu Parcelles ni fii ci 你很多钱。